vous voulez, comme vous voulez. Yéen yéen vous êtes les professionnels quoi. Hein? C'est bon. reportage yendo. Baax na. <laughs> DG Seyni sommes à Touba. Il y a des pénuries d'eau dans plusieurs quartiers. Euh, euh la solution que nous offre le Fort? Euh, mais je vous remercie. Nous sommes à Touba avec euh, l'équipe technique. Suite aux dysfonctionnements qui sont constatés au niveau de certains quartiers, dus à l'arrêt de quelques forages, euh, F4, F5, et ensuite une baisse de débit également constatée au niveau de deux autres forages, F7 qu'on a eu donc bon, à intervenir, à réparer, mais la pompe est d'un débit inférieur par rapport à la pompe initiale. Ça, c'est pour soulager donc bon, les populations en attendant de trouver donc une pompe euh, d'un débit adéquat. Nous avons également une baisse de débit au niveau donc euh, du forage de Al-Azhar. Mais l'ensemble de ces problèmes-là sont connus aujourd'hui et des solutions sont en cours. Donc euh, on s'y attelle. C'est vrai, crée des dysfonctionnements, mais il ne faut pas oublier que tout bas, contre 26 forages. Donc euh, sur 26 forages, que deux donc, bon, qui sont à l'arrêt. C'est vrai, l'eau est vitale, c'est une période de chaleur, c'est tout à fait normal également à ce que les populations réclament cette euh, denrée extrêmement donc, importante qu'est l'eau. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Les autorités également nous ont donné des instructions fermes pour que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Raison pour laquelle nos équipes sont là depuis lors. Euh, il y avait même un autre forage il y deux semaines de cela qui avait donc lâché sa pompe. Mais là, nous sommes intervenus rapidement pour régler le problème en repêchant donc la pompe. Maintenant, en dehors de ces problèmes qui sont évoqués et qui créent ces dysfonctionnements, il faut rassurer donc moi les populations en leur disant que euh, c'est des moteurs qui peuvent arriver donc à cette situation à n'importe quel moment mais l'essentiel c'est de connaître le problème et de s'y atteler donc à temps donc nous les rassurons en leur disant que nous sommes parfaitement avec euh, cette population pour les accompagner et les rassurer faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'eau raison pour laquelle d'ailleurs euh, en dehors de ces dysfonctionnements nous sommes là pour préparer le grand événement euh, qu'est le Magal, pour ne pas attendre jusqu'à quelques mois ou bien quelques semaines, faire le diagnostic et essayer donc de dresser un plan d'action. Euh, nous sommes là, nous avons rencontré les autorités administratives, les acteurs, euh, Mao également, qui gère pratiquement ces ouvrages. Nous allons pendant trois jours sillonner l'ensemble des ouvrages dresser un plan d'action qui consisterait à voir donc comment assurer l'entretien et la maintenance, comment augmenter la production, quels sont les forages à renouveler, quels sont les réservoirs à reprendre, l'ensemble des mesures à prendre pour que, Inch'Allah Rabbi, le prochain Magal soit un grand succès, comme nous l'avons réussi d'ailleurs avec les événements qui, sont suivis. À Porokhane, suffisamment de dispositions ont été prises. Il n'y avait pas de problème d'eau. Le Dakar de Medina Gounas, l'an dernier, il y avait des problèmes. Cette année, Machallah, les dispositions ont été prises à temps. Ce matin, nous étions à Darumoussi avec le Magal de la semaine prochaine. Nous avons anticipé. C'est la raison pour laquelle donc, notre présence est là pour rassurer tous les acteurs suite aux instructions qui nous ont été données. un retour à la normale est imminent parce que nous y attelons. Donc, euh, si la pompe était sur le marché, hein, là en ce moment, on dire que donc dès demain, la pompe serait montée. Mais oui, comme vous le connaissez, donc euh, les, les, pompes on est en train donc bon, de voir avec les fournisseurs de la place, avec la SDE, donc euh, pour trouver des pompes de cette taille. Si maintenant on ne trouve pas, donc bon, des pompes de cette taille, on va essayer comme on l'a fait avec euh, f monter des pompes euh, d'un débit inférieur en attendant que la solution soit rapidement trouvée. Mais aussi peut-être que si le problème devait persister, une solution alternative serait, comme on le fait dans les grandes localités, à Foundiougne, à Dakar, euh, amener des camions citernes pour soulager donc bon, les populations en attendant que rapidement ce problème soit réglé. Euh, déjà yéen a ngi Touba euh, mu mel ni fii am na ay jafe-jafe ndox quartier yu bëri euh, ban taxawaay la effort am pour loolu saafara. waaw tey jii ñu ngi fi Touba parce que am na ay forage yoo xam ne dañ am ay jafe-jafe muy F4 di f cinq ensuite ñaari forage yoo xam ne aussi seen débit dafa wàññeeku mooy Al Azhar. muy également F7 F7 sax dafa paanoon mais jot nañ ko réparé mais pour fexe soulager les populations dañ fa def benn pompe boo xam ne bii débit bi dafa xaw a néew ba fa nekkoon mais tout cela c'est pour mën a réagir rapidement en attendant que ñu trouver pompe boo xam ne bii 200 euh, mètres cubes la euh, ñëw également euh, pour préparer le prochain Magal ak tous les acteurs gis nañ euh, le sous-préfet recueillir donc ses ses recommandations euh, maaw également danañ waxtaan ak moom d'ailleurs équipe bi du ñibbi tey équipe bi daf fi des pendant ñetti fan ñetti fan yooyu danañ def l'ensemble des forage de des comme ni ngeen ko xamee Touba nekkul ne benn forage la mu bee ñaar ñaar fukki forage ak juróom-benn ñoo fi nekk ñaar fukki yeeg juróom-benn yëpp ñaar ñoo fi nekk à l'arrêt donc nekkul ne donc bon li ëpp ci quartier yi ñoo ñàkk ndox mais nag ndox dafa nekk loo xam ne lii mënul ñàkk boo xëyee yeewu amuloo ndox baa ngay tëdd amuloo ndox il faut nga wuti ko raison pour laquelle fu pompe amee problème rek c'est normal que population yi xaw jaaxle ci jaaxle boobu nag loolu moo tax ñun donc euh, ñu ngi xool ak nos partenaires a la S2 ñu ngi xool ak les fournisseurs ñan ñoo ñu mën a jox rapidement pompe yooyu pour que ñu mën ko réparer nu mu gën gaawee léegi maintenant bu fekkee ne problème bi dafa xaw a tar il y a quelques jours comme ni ñu koy defee Dakar ni ñu koy defee Foundiougne ni ñu koy defee ci yeneen villes yi soutenir ces forages là bi nga xam ne bi début bi dafa néew par des camions citernes voilà donc en tout cas daal loolu moo ñu fi indi donc euh, préparer aussi euh, màggal bi nga xam ne gi mu ngi dëgmal si donc euh, mu nekk événement boo xam ne bii événement bu rëy la daaw am na quartier yoo xam ne amoon nañ uh, ay difficulté moo tax ren ñu bugg ci teel jóg njëkkoon nañu def benn diagnostic mais diagnostic bii day nekk boo xam ne bii bu gën a yaatu li ñu defoon la parce que entre temps forage yi daw nañ fi gis nga am nañu ñu commencé tombé en panne reprendre ko ñetti fan nañ fi toog ànd ak waa Maaw recueillir les recommandations ak les conseils des autorités avant que donc la comité d'organisation di tenir sa réunion mi ñun dana fekk déjà am loo xam ne lii tëgg nañ ko ba pare commencé ci liggéey bu boobaa bu xaalis bi teewee incha allah rabi ñu mën a commencé liggéey bi nam gën a rap nam gën gaawee bu boobaa yaakaar nañ ne incha allah rab rabi comme niñ ko réussiré à Porokhane ci daaka bi yooyu yëpp dafa manqué ndox mais ren macha allah ak disposition yi jël anticipation bi nga xam ne bii donc bon offre def na ko moyens nga xam ne bii état bi dégagé na ko yaakaar nañ ni incha allah bi danañ ko réussir gis nga moo tax tey jii ñu jógee Daaru Musti parce que semaine prochaine màggal bi daar Daaru Musti dañ koy amal foofu aussi am na fa forage yoo xam ne yi ñu ngi ca di def l'entretien di def la maintenance waxtaan ak les autorités yi def les essais jël toutes les dispositions nécessaires ba nga xam ne dañu ko réussir en tout cas loolu daal moo nekkoon suñu tànk tey jii donc euh, di leen gërëm encore une fois di leen sant di ñaan yàlla yàlla may jàmm may wër saafara problème yëpp ah, ci ñaanu ah borom dëkk bi ah di sëñ Xaadimu Rasuul ak ñi nga xam ne ñi donc ñoom ñooy xalifa di ziar ñëpp di sant ñëpp wasalaam